ñaax ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall maanaam di ko ñaax ci jëm ci wàllum ñetteelu candidature ci bopp réewum Sénégal yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar nañu député yi nga bokk ci coalition Wallu Sénégal ñoom nag li nga xam ne moom la ñu bëgg maanaam mooy Amadou Ba premier ministre def déclaration politique générale bala ñuy examiner li nga ne mooy budget bi bala ñuy voter budget bi maanaam def déclaration politique générale ba pare ndax ñoom ko jalgate yéen kaay ne ñuy waa coalition wàllu Sénégal bu ñu bloqué nag lu jëm ci wàllum vote budget bi bu mu leen bett ndax ñoom li ñu bëgg mooy déclaration politique générale bu Amadou Ba bala ñuy vote budget bi yéen kaay gi du l'Observateur xëy wax ci loi de finance 2023 nee na Macky Sall jamono ji il faut mu ngëb ci loxoom lu toll ci cent milliards ngir nag mën a wàññi yenn njëg yi nga xam ne dafa yokk ba maara détaillé lu jëm ci wàllum député yi ñaari milliards la ñu ngir jëndal leen ci ay oto yéen kaay gi xam ne ñoo bokk ci coalition wàllu Sénégal ñoom nag nee nañu gouvernement bu budget bi nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg ku leen ko voté la amuñu benn intention ngir nag régler jafe-jafe yi nga xam ne maanaam moom la askanu Sénégal di dund ay yéen a kaay gi de la sa nee na juróom fukki membre yi nga xam ne ñoo bokk ci au conseil des collectivités territoriales yéen a kaay gi de la Soleil xëy di ñu xibaar naan ñu nga xam ne ñooy waa Maroc ñoom nag jàppale nañu producteurs yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ci lu toll ci yoo xam ne Sandaga ay moyen Sénégal waaye nag ñi nga xam na ñuy waa fédération bu Sénégal lëngoo ak waa douane ñoo ko daal di bloqué ay moyen contrefaçon la yu Sénégal yéen a kaay gi la Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw fanweeri at guerre bu golfe bi ñi nga xam ne ñoo ci lor woon ba léegi maanaam ñoo ngi xaar ku leen ndàmp yéen gi nag nee na commission bi nga xam ne moo yoroon wàllum ndàmp gi maanaam commission bi yoroon indemnisation bu ONU bi dañu ko mujjoon a sax tasa ngi ci taabalu Macky a baax a nga xam ne moo xew ndax càddu googee ay manifestation ñoo fa amoon bëri ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan moo tax Mimi Touré moom nag dafay sàkku ci ñi nga xam ne ñooy waa CPI Cour pénale internationale ngir nag ñu daal di autosaisir yéen a kaay gi di wal fa jëre xëy duñu xibaar naan ñu ci Sénégal jigéen ñi nga xam ne ñooy amee cancer ci seen weena at mu jot ci réew bëri na loola ndax bi ñu ko xayma jege na lu toll si ñeenti junne waaye nag jigéen ñi ñoom ñoo war a xam ne lépp loo xam ne ay métti métti la ci seen ween yi dañoo war a gaaw a kër docteur dépistage yéen a kaay gi di lay seko xëy xibaar naan ñu njombe am na ci diwaanu yëmbal sud foofe nag benn waay boo xam ne fukki at ak juróom-ñeent la ama ab drogué la ab drogué la moom nag dafa rey tàntaama kaasu café Touba moo ko waral journal bi nag nee na njaboot gi famille bi dañu ko bëgg nëpp nëpp la loolee moo tax ñu wax ne drogué boobu maanaam àndul ak xelam yéen kaa gi di estat xëy yóbbu ñu Angleterre nee na Premier League tey jii diggante Chelsea ak Manchester United waaye nag ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo moom nag du bokk ci match bi ndax match bi doxoon diggante Tottenham ak Manchester United match booba muy jeex Chris dafa géddoon loolee moo tax gars yi nag teg ko ay